mbokki internet yi Sport Life 221 xibaar yi nag euh, ak ci jëm ci wàllu tàggat yaram ñu door rek ak ëttu yéen kaay bi di sunu làmb euh, sunu làmb nag ñëw ci li nga xamante ni euh, moo di diggante Ama Baldé ak Gris Bordeaux ak leer yu mu ci andi ñëw na tamit ci franc ak ay douze combats mak yu nu mel waaye daal de laata loolee ñu doore vidéo bi nag ak ki li nga xam ne moo di Herby Yékini ak Guédiawaye wala derby Pikine Guédiawaye ngeen baal ma. Eh, diggante Pikine ak Guédiawaye nag lay dédd bi di amee Pokola war daje ak Gàkku 2 le 29 octobre donc nag dér bi la diggante Pikine ak Guédiawaye encore le 29 octobre diggante Pokola ki nga xam ne moo di Gàkku numéro 2 gala des espoirs nag bu euh, fallu Ndiaye eh, ni ki démb nag ki la di Boy Diop moom daal di daan ki nga xam ne moo di jeex jàmm euh, da jox ko li nga xam ne moo di premier défitam loolu mu doon amee euh, ci ni nga xam ne nag moo di gala bu fallu Ndiaye gala des espoirs donc Boy Diop nag daal di jox ki nga xam ne moo di jeex jàmm defetam bu njëkk ci takku ngembam euh, douze combats douze victoires Franc une réelle menace pour les VIP donc rak moom France euh, fukki yoon ak ñaar muy takk ngembam am ca fukki ndam ak ñaar amut benn yoon boo xam ne ci fukki combat ak ñaar yooyu déggee na ko muñal moom Franc mi la nag nekk ab menace maanaam nekk koo xam ne rek. Euh, jamono jile gàllankoor la wala sax euh, jagal jaaxal nañu bëri ëlëm na xelu euh, mbër yu bëri ci arène nationale fii la ci Sénégal wala sax ci arène de lutte bu Sénégal noonu ko journal bi di sunu làmb dafay ci xëtam bu njëkk ci xët mu njëkk moom la dañuy des jeexale fa xibaar yi. ak euh, Ama Gris calé pour le premier octobre donc nag CNG maintient euh, prévient et menace euh, xam ngeen ne lamb Ama Baldé Gris Bordeaux gannaaw bu ko CNG tëggaatee taxawal ko le premier octobre nag moom face ak Gris Bordeaux mi la di seen mbër date boobu ci benn yoon ndax ne la ñu doon sàkk moo di fin décembre 2023 bi la wala janvier 2024 taxoon ñu yóbbu akub recours fële nga xam ne moo di ca CNG CNG nag daal di leen débuté maintenir combat ba ca premier octobre ba daal dafay taxaw temm nag waaye tamit di dànkaa fu baax baax te di mën a sax di nga xam ne moo di fas ak seen bër di Gris Bordeaux noonu la ko journal bi suñu lamb waxee Maysa Ndiaye nag nee na moom premier vice président bu CNG nee na Gris pourrait subir une amende ou suspension Euh, ne la ko xam de moom mi nga xam ne mooy premier vice président bu CNG moom nag nee na le combat doit être respecté par toutes les parties le contrat kon doit respecté par toutes les parties moom ko nag loolu mooy kàddu yi nga xam ne vice euh, premier vice président bu CNG àdduna ko ci combat boobee jàpp na nag ba daal muy premier octobre foofu la ñu ko daal di teg euh, samp ko bu mu dëgër Gris Bordeaux nag mën na caa jëlee akop amende wala suspension sax bu respecté lu nga xam ne bi ndax ñoom ñaar ñi la ñëpp des ko war respecté kon nag jàppale ne daal CNG fa mu tënk mbir ma rek eh, taxaw fa temm ca diggante Ama Baldé Gris Bordeaux mooy le premier octobre eh, face ak Gris ak seen record daal di neen ndax CNG daal dina leen débuté waaye CNG yemul foofu ndax campé na ci position ba noppi dal di prévenir ak menace li nga xam ne moo di Gris Bordeaux eh, nekkoon fa contrat ba nag ñoom ñaar ñëpp muy moom muy Ama Baldé wala sax promoteur ba ak yu ni mel ñëpp ko war a respecté. ñu ko gàdd ci ndolam jërë ngeen jëf mbokk internet li moo nekkoon luñu xibaar ci biir vidéo di jox dig daje beneen yoon yeneen xibaar ci yeneen vidéo laataa loolu wéy di like wéy di abonné ci seen chaîne Sport Life 221 ku dee gan ci page bi te go mën nga abonné activé sa kolos su lu ñu dugal ci vidéo nga bokk ñu koy njëkk jot 4 régions du Sénégal diaspora bi cant ngërëm ñeen